kii mais depuis boobu dañoo gis beneen force bu jóg mooy F24 mais daa ñëw ne di ngeen ñëw rek yéen ñëpp ngeen bëgg dugg ci biir. F24 est-ce que nekkul yooyu dafa bëgg a fay ngeen bëgg jàppandi ci F24 c'est-à-dire euh, euh, la coalition Yewwi Askan Wi coalition politique la typiquement politique F24 coalition citoyenne la. loolu ma ci jaaxal. mais pour homme politique yi ñoo ëpp ci biir F24 tey. F24. société civile ñoo ci ëpp sax ñoo ko diriger ñoom ñoo ci ne. Ah, ñoom Aliou Sané ak ñoom ñëpp ñoo ci ne. ñooñu dafa am question yoo xamante ne au-delà de nos coalitions respectives au-delà de nos partis politiques respectifs dafa am question yoo xam ne ñoo ko bokk comme ñoo ko bokk nag nañu fédérer suñuy force pour taxaw xeexandoo ko li ma lay wax si ne la bañ Sénégal basculer wu dugg ci njàmm parce que bu troisième mandat bi jàllee nous serons plus des citoyens nous serons des sujets. pour loolu bañ a dem sénégalais yépp jël ci conscience toutes les forces vives de la bi jël ci conscience ñu taxawandoo pour empêcher le président Macky Sall mu def li nga xamante ne constitution bi mayu ko ko santu ko ko li ko constitution bi may sant ko ko def na ko mooy am ñaari mandat yu teglantoo te dootul am beneen mandat bu bu ci topp foofu la ñuy wax loolu moo indi xeex boobu yeewe askan bi dama ne la bu ñu la digalee ne la boo saraxee ñoo xamante ne seen ànd jeexagul demal jox ko waa yeewee askan bi lii lii lii tàggalewuñu ñun dañuy gagner réew mi ensemble gouverne le Sénégal. parce que dafa yaakaar boo xam ne créé nañ ko ba pare. mais naam yaa ngi wax loolu mais gis nañ euh, démb rek euh, gouvernement bi génn nañ di leen taster de di responsabilité par rapport ak acte bi ngeen xam ne teg ngeen xam nga Abdou Karim Fofana vraiment vraiment il fait pitié quoi Sall tax nga wax non très sincèrement il fait pitié parce que il est relativement jeune il est relativement jeune et je pense que il gagnerait à à à, à savoir que pour... en fait j'ai un peu pitié de lui parce que je connais beaucoup de gens ay xaritam on a beaucoup d'amis communs et tout cela ñoo xam ne dañ ko bëgg et tout cela mais il est relativement jeune am na sujet yoo xam ne vraiment ak comportement yoo xamante ne man xaaruma ko ci moom parce que il est jeune avenir Sénégal moo nekk suñu kanam ñun ñuy xeex pour pour le Sénégal et pour les Sénégalais et je pense que sa responsabilité historique serait de fair comme ñi taxaw oser jàkkaarloog le président Macky Sall ne ko fi nga jëm réew mi baax mais moom itam ci rôle am la nekk comme ni ngeen nekkee seen rôle. non non non xam nga loolu c'est des ce qu'on appelle des enfanti des enfantillages institutionnels amul sens taxaw fii di ana Abdoulaye Wade ñi fi toogoon di bander les muscles et tout cela tey histoire daf leen a daf leen a fàtte te moom amul responsabilité wu histoire fàtte ko dafa war a bokk dans le jeu kon dafa war a xam ne euh, avenir u Sénégal mu ëpp doole avantage personnel am di moment mu ñu comprendre ne le président Macky Sall nekkul ci li mu war a ne mu ne ko président nekkoo ci dëgg demal respecter li opposition bi wax loolu mooy dëgg si loolu lañ koy xaar keroog j'ai vu benn image boo xam ne sama m'a beaucoup parce que pour man euh, l'état c'est du sérieux mmh. pour man ce qui l'incarne l'état vraiment dañu symboliser énormément de choses ku mel ni man damay fàttaliku je pense que c'était en 99 ou 98 le président Abdou Diouf ñëwoon caserne Samba Diéry Diallo ñu nuyoo mu nuyu ñu parce que dañu jële woon CM euh, dañu jële woon euh, suñu école indi woon ñu muy nuyu kii mu nuyu mais nuyoo boobu noonu ça ça ça avait marqué beaucoup de choses si ñun parce que dem ñoon teg le président de la république dafa am lu bari lu ñu marqué woon tey su ma gisee un premier ministre ministre toutes les ministères de la souveraineté day toog ci conférence de presse wax ba pare yow mënoo ci retenir dara man mënuma ci retenir dara. mais yow bëggoo ci retenir dara. non non non je xam nga j'ai prix j'ai pris dama toog. mais seen wax leer na ñoom dañoo wax pour génnee maanaam leeral mais. non le problème a nekk moom lu ñu leeral. ak li ngeen bëgg a dégg bokkul je veux pas li ñu wax dama ko bëggul a qualifier bi mu doon pour de région de pudeur républicaine bëgguma ko qualifier mais vraiment c' est c' est très dommage beneen affaire bi ma gis le premier ministre demaat pour man sax erreur la woon de sa part mais demaat dem si daral taxaw man dama jënd xaru 60 000 vraiment très sincèrement ak fi réew mi toll. ñu jàpp ne xaru 60 000 lu tax warut a mën a jënd xaru 60 000. entre nous entre nous ah oui c'est que premier ministre la rek mais aussi man je suis un bon citoyen je dis pas certains mots mais vraiment c'est dommage